les 19 communes ñu ngi di kontaan trop trop trop tey ci mobilisation extraordinaire et bi ngeen def lii di firndeel rek ni yéen a ngi derrière vos leaders te na ngeen xam ni loolu leader bu ko am dara desetu na lu dem ci mbir mi ba jeex ci tàkk rek may nuyoo leader yi fi nekk yépp ku gis lii ku gis plateau bii ñi fi nekk ñëpp ngeen may ma ma leen ni ku gis Cheikh Tidiane Youm wala ma ne ku gis sëñ Moustapha Sy gis ci wetam honorable mon jeune frère, un de mes rares dans la classe politique Déthié Fall gis suñu sëriñ suñu kilifa sëñ Mansour Sy gis nag suñu doyen bu exceptionnel exceptionnel efficace def liggéey bu extraordinaire ci coalition bi te nit ñi xamuñu ko peut-être muy suñu doyen Habib Sy docteur Cheikh Tidiane Dieye bi avenir bi ñu bëgg gis suñu shérif Ahmed Aydara waaye defe naa Alaaji Malick ak ñi fi nekkul ñi fi teewul parce que newuñu fi sama yaay ji Ayda Mbodj ñu koy ñaan mu yokk ñaan ndax actuellement ma nga di umra Cheikh Tidiane Dieye Moustapha Girassi Djibril Diop euh, mon frère Thiam Babacar Diop defe naa fàttewuma kenn waaye su ma fàttee dañu comprendre ku gis lii yëpp daje nga xam ni lii du coalition bu ndaw ku gis lii yëpp daje nga xam ni ci qualité ak ci quantité nous avons ici la plus grande coalition politique du Sénégal waaye li ma bëgg a wax rek mooy ñun bu ñu fàtte lan mooy suñu jubluwaay élection locale benn étape la rek ci fi ñu bëgg a jëm nañu fàttaliku ni d'abord suñu combat dafa yaatu combat africain la panafricain dafa tàyyi dafa sonn ci nekk mbalitu àdduna bi les Africains en ont d'être à la traîne de l'humanité, les Africains ont décidé de prendre leur destin en main. Et partout en Afrique s'exprime désormais le réveil des consciences. Le réveil des consciences, vous voyez ce qui se passe au Burkina Faso, vous voyez ce qui se passe au Mali, vous voyez ce qui se passe en Guinée, et vous voyez ce qui se passe ici au Sénégal. li ñuy xeex ci élection locale benn étape la donte am na solo bu ñu fàtte ni fi ñu bëgg a jëm walla li ñu fi ñu war a yegg pour soppi réew mi soppi Afrique ëpp na loolu moo tax ñuy waat ñëpp ci mobilisation autour de la coalition dañoo génn ci investiture ñëpp xam nañu investiture lu métti la bëri na ñoo xam ne mer nañu parce que la ñu foogoon wala la ñu bëggoon amuñu ko waaye bu ñu fàtte ni àdduna bi walla Sénégal du taxaw keroog le 23 janvier 2022 léegi suñu mbëbët ci Sénégal ak la ñuy xeex du jeex keroog la 23 janvier 2022 kon ñi ngi woo ñëpp ñu dellu si daal di mobiliser waat autour de l' te l' mooy coalition bi ñu am ñun ñëpp xam nañu liy soppi Sénégal du génn ci lii kon yén ñi teew fii loolu bu leen ko réeree mbir 2024 la ñu jëm te gannaaw 2024 ñu boole suñu doole boole suñu xam-xam daa di soppi réew mi yeewi askan bi ba yaakaar gi Sénégal yàgg sénégalais yàgg am xaar gi ñu yàgg xaar lu weesu 60 ans loolu lépp firndewu ci ni ñuy yore réew mi est pare ngeen pour loolu. day wax nag tamit day wax tamit jëm dégg naa ay nit di jël ay initiative ne dañoo bëgg mbooleem ñi seq mbir mi daa di benn charte pour la non man de damay wax man Ousmane Sonko du ma benn charte. We're not going naa rafetlu naa rafetlu naa seen waaye nag gis nga violence kenn ku ne su defee li mu war a kenn ku ne yem fi nga war a yem violence du am te nag bu ñu nangu parce que am na loo xam ne dafa commencé ni roog naa fekk ngeen baal ma wax ji parce que violence ci benn côté la jóge musoo gis opposition attaqué toujours les mêmes ñooy attaqué ba pare làqatu ci gannaaw force de défense et de sécurité su kenn ku ne yemee fa nga war a yem jàmm dina ne ñooy lu ko mooy nag li ma wax yàlla santaanewul kenn nga dem joxe sa bopp ñu lay duma ku leen soxleen ko man maa ko wax dama ne gis nga Sénégal Sénégal dafa am ay nit yoo xam ne heureusement bariwul ñun mën nañu wër ci télé di ñu saaga loolu tax ci dara day romb mën nañu fay ay nit ñuy bind bis bu ne di wax lu ne si ñun day romb waaye yenn ay yat yenn ay paaka ñëw ne dañ ñuy dóor duñ ko nangul kenn dama ne dama ne xam ngeen ni ñii tolluwuñu ak ñoom duñu sax seen morom. moo tax ma ne leen ku leen xosi dóor leen ko may jéem ku leen matt ku leen matt bu leen bëñ loolu rek mooy solution bi parce que ñu ko seqoon ak ab nit sax ñu wax waaye xam ne ñu ko seqal ñu doon kon fu may daanelee nag mooy nañu mobiliser wu autour de tous nos candidats ci Sénégal ndax nag ñoo ngi présenté candidats yi waaye fàtte nañu nag ni candidat ngi fii candidat fan kon dama bëgg ngeen ànd ak wax nii dama bëgg ngeen wax ndax enjeu bu rëy a la xam ngeen ni waa ji fi mu ne nii looloo ko tere nooyi ndax làbbaliñ ko fa làbbali 2019 ba léegi digéré ko moo tax saa su ne ñu ne léegi lu xew lu bees mooy gis ngeen tey ne nañu signé nañu convention américain pour tabax ay pont Casamance lu baax la soxla nañ ko nee nañu tey taxaw nañu les points nano baax na nee naa nag sama mbokk Casamance yi fu ñu ne alhamdulilah war ne nag jërëjëf Ousmane Sonko. ndax dinañ leen dinañ leen xëppal lu ne ci jamono ji ñu toll. waaye le 23 ca guddi ñii bu ñu amee vint cinq cent ngeen xam ni du Ousmane Sonko. kon. nañu mobiliser wu autour de tous nos candidats à travers le Sénégal nag ñëpp xam nañ ni Dakar mooy élection man bokk naa ci ñu taxaw samp lépp lu ñu mënoon samp pour que Barthélémy Diaz nekk maire u Dakar xam ngeen tax xam ngeen tax du ma ci guddal de ndax duma ko tàgg ndax dama xam jikkoom tuuti boo ko taggee rek mu sax xilaaf moo tax ma coow lu bëri waaye li tax ma li tax ñu sonn ci mooy benn benn Barthélemy Dias du koo xam ne dangay ngay ànd ak moom xare jot nga wëlbatiku doo ko gis te man nag loolu laa gëm ñaareel bi foofu lay daane léegi Barthélemy Dias kenn du ko jox mairie mu jaay ko Macky Sall dina ko jël en tant dina ko yor en tant qu'opposant ba 2024 ngeen waa ji ba biir bi weextaan ñu ne ko rëpp mu yor ko ko yor en tant que mu ko yor en tant que ku bokk ak defar réew mi soppi mi moo tax ma ne Barthélemy Dias maire de Dakar